prélude pour empêcher Khalifa Sall de bokk. Mhm. ils ont mis que ne désormais pour être candidat à la présidentielle il faut être inscrit et moi je dis que ne beneen tort bu ñu teg Khalifa Sall. mooy dañ ko dindi ci liste électorale yi mhm. mais le code électoral di nit ki boo ko dindee ci code éle ci ci ci corps électoral bi da koy def ci décision bu ñu motiver da ko koy signifier pour permettre ko mu exercer ses voies de recours mhm. Khalifa Sall n'a jamais reçu d'acte bu koy wax ne génne nañ la ci liste électorale yi vous voyez donc ni nga xamante ni noonu lañ def pour que xalifa Sall bañ a bokk mhm. aujourd'hui il nous oppose cette disposition en disant que ne nekku leen ci liste il nous dit que ne dañuy def amnistie et ça là c'est très grave il faut constater que dans l'affaire Khalifa Sall Macky Sall moo politique ba yóbbu ko kaso Macky Sall moo politique ba génne ko kaso Macky Sall moo politique ba instaurer le débat sur l'amnistie et c'est le moment de condamner les propos maladroits peut-être du, du, du, du professeur Ismaïla j'allais dire euh, le professeur devenu élève de ses étudiants parce que moom li ñu jàngaloon ak li nga xamante ni moom lay def franchement euh, du kii moom si discours am si propos am mhm. il dit que ne defar na loi bi mu ngi ci taabalu président mu ngi ci taabalu président il appartient à ceux-là qui sont intéressés de se manifester. Mmh. Depuis quand on doit se manifester pour une amnistie Et la contradiction ressort de ses propos quand il dit que euh, la loi est impersonnelle. et dès que la loi est kenn warul def une manifestation mais loolu pour man il l'a fait exprès il l'a fait sciemment mhm. li nga xamante ni moom lay nëbb dans son discours ñi ko dégg ils ont entendu mu ne euh, loi bi nga xamante ni dañ ko tëgg dafay effacer de telle période à telle période fee yi nga xamante ni moom mooy enrichissement illicite fee yi nga xamante ni moom mooy détournement fee yi nga xamante ni moom mooy blanchiment ñetti infraction yooyu mu visé. Mhm. benn bi lañ ci condamné xale. Euh, euh, Karim Wade Karim Wade mais Khalifa Sall n'a jamais été condamné pour détournement jamais. de deniers publics. xalifa Sall n'a jamais été condamné pour blanchiment d'argent. faux usage de faux la ñu wax ak escroquerie yu mel noonu. ak escroquerie. Oui. maintenant si dans la loi. le ministre dit que ne détournement de deniers publics ci la bokk. enrichissement si la bokk. mais nag aujourd'hui la question que les Sénégalais les politiques doivent mettre sur la table c'est de dire que détournement boobu ak enrichissement boobu ñan lay viser est-ce que ils se sont manifestés ak fan lañ manifester il veut prendre pour prétexte Karim Wade Khalifa ci ñeneen comme ni ñoo amoon ay soupçons dès le dès le départ mais parce que infraction yi mu visé kon du bu pare nag ne da ngeen a manifester intérêt ci amnistie bi waaw comme ça ëllëg ñu ne yéen a ko sàkku woon ñoo ko sàkku woon mais la je salue la mais vous mettre entre le marteau et l'enclume maanaam da ngeen bëgg ngeen ñëwaat mais bu ngeen ko manifester automatiquement day laaxaale ñeneen pas dans une prison je pense que ne bi ñuy agiter la question de la grâce am na jour damay dem prison Euh, yenn journaliste ñu ooma ma def interview ma ne xalifa Sall n'a jamais demandé une grâce et ne demandera jamais une grâce. Hmm. bi ma demee dana ma soo waxoon leneen di ma tooñ. pour dire que moom il est conscient que c'est le président qui l'a mis en prison il est conscient que président ba mu xamee ne xalifa mii jàpp na ne neutraliser naa ko moom moo def le tout jox ko une grâce forcée aujourd'hui il veut lui donner une amnistie forcée mais ak une communication boo xam ne ils vont voilà quoi c'est c'est c'est en fait de malhonnête de leur mais amnistie bi dafay laaxaale ñu bëri maître est que tamit yéen ci seen euh, bëgg Sénégal ci seen euh, bëgg xeex li nga xam ne jaaduwul est-ce que war ngeen nangu nangu nangu loolu même si mënu leen ci dara. mais au moins ngeen manifester ko ba ñëpp xam ne voilà. non non non moi je vous dis moi je vous dis ñun daanotu notre suñu position du varier mooy que cette histoire d'amnistie cette histoire de grâce ñun mësuñ ci wax parce que yëfu Macky Sall waxu président de la république la moom moo ko agité. mais dans d'autres circonstances doon ngeen dénoncer procédé bi maanaam ni ci bëggee laa xaale ñu neen ba ba ñëpp ci. mais xam nga ñu nous sommes très mal à pour wax ci question parce que ñun la bu buñ ci wax les gens verront que. peut-être que ne sunu intérêt la ñuy waxee mais dañ leen di bàyyi ak seen problème ils vont résoudre leur problème.